السلام عليكم ورحمة الله بكي ينجلني دلان زيار أنبال الحق دلان بال يعني برب سبحانه وتعالى مبالي جيجا هي مسألة سبعة وستون مسألة جروم بين فك أك جروم نيار نمير سوسان ست sunanul xusli الغسل ne sunanul الغسل خمس وهي واحد غسل اليدين إلى الكوعين أولا وقبل إدخالهما في الإناء بشرط أن يكون الماء قليلا أن يكون الإفراغ منه اثنين المضمضة ثلاثة الاستنشاق أربعة الاستنثار خمسة مسح صماخ الأذنين والصماخ هو الثقب أذني ولا يبالغ في ذلك لأنه يضر السمع لول ما يسمي درس في مسألة نمير وسوسان سات من السنة يسنغو فارتا بچنجك ما يرخص نياري لخوي بفيني تاك منتور نجك مولاني دوغل تندبلي ما يبودي سيولا ولا بان ولا يوي بلانجي دوغل لخوي فوف رخص بباري même bu dee chasse buy sotteeku la bala ngay tàmbalee sotti di bomb raxasal say loxo ba pare ñaari bi mooy gàllax ni ko dugal ndox mi ci gémmal gémmeñ bi dugal sa baaraam guuj guujal ko yàbbi ñetteel bi mooy sarax ndiku mooy dugal ndox mi ci bakken bi ñeenteel bi mooy firo mooy génne ko juróomeel bi mooy raxas nopp yi euh, ki ñu jàngaloon mooy fiqal ibadat yàlla mooy ki kawee te xam lépp bu ñu dee tënk darsu tay bi ci sunnay sangu farata bi nga xam ne moo ca jiitu mooy raxas say ñaari loxo bala ngeen leen dugal ci ndàpp li waaye chart ci chart ndox ma nekkul ndox mu néew mooy bañ a yàq ndox mi te it da nga mën koo sotti it wala ca la bokk mu ta tabtal ca gàllax ndiku ak sarax ndiku ak fiiru am lu ñuy wax mooy bu mujj bi mooy raxas nopp bu ñee raxas nopp muy jël ndox mi dugal ci biir nopp bi fexe ba mu tooy mu ne moo tax mu ne jarul muy wala yu baalixu fii dalik jarul muy ëppal ëppal bi mooy lan mooy jël ndox mi dugal ba ca biir nopp bi léeg nga dégg ku nan booy raxas sa nopp si sangu farat da jël ndox mi dugal ba ca biir daal def ni génne déedéet jarul muy muy muy yegg foofa na nopp bi tooy rek moo tax mu ne wala yu baalixu fii dalik li annahu yaduru sama loolu mën naa indil jafe-jafe nopp bi man nako koo indil jafe-jafe mën na mu tax mu tax mu jële ci mettitu nopp wala mu dem ba indil ko gal yenen yenn ko bu budé biti nopp bi nak nako rax sama tamane wa amma zahiru l wa batinihima fa huma min zahiri l yajibu ghasluhuma li nga xani moy biti nopp bi moy kubéru nopp bi li feñ li ne ci biti ak li ne ci biir yëpp nako fexe ba mu toy nak loolu dafa bokk ci yaram bi loolu moy suñu dar ci tay Eh, yal na yàlla defal dégg ak topp ku ci am lu muy laaj mën na bàyyi ci Ahmadiyya TV wala Ayn Madi TV buñ ko xamee ci kàttanu yàlla danañ koo tontu incha allah subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk wassalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh